doomu Tayba TV ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziyaaralu bari di fàttali sama bopp waaye di leen fàttali li di ferlu ci lislaam xam nga mbir la moo xamee ni jullit ñu bari dañ koo sàggane waaye nag mbugalu bàmmeel da cee nekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ibnu abbas radiallahu anhuma daf ñoo nettali ne yonent bi sallallahu alayhi wa benn bis dafa romb ci armeel yi mu daal di joxe ñaari euh, xabru mu ne ñaar ñi dey ñu ngi leen di mbugal kenn ki nag li tax ju koy mbugal mooy dafa daa wër di dox ci diggante nit ñi di leen di jaxase moo xam borom kër la ak soxnaam moo xam ay xarit la moo xam ay dëkkandoo la waaye daal dafa daa wër ci diggante nit ñi di leen di jaxase loolu moo ko andil mbugalu bàmmeel bi mu nekk nii waaye yowmal xiyaamit bu dekkee dafay fekk mbugal waaye nag keneen ki li tax ñu koy mbugal mooy daawul ferlu kon na nga gis ne mbokki ferlu lu am solo la lool ci diine lislaam ndax ñàkk ferlu dafay andi mbugalu bàmmeel ferlu nag mbokk yi mooy nit ki bu tuuree ndox wala mu dem ginnaaw kër dafay xaar ba lépp jeex mu daldi nag raxasu daldi di eh, jàpp julli loolu moom mooy ferlu waaye bu fekkee da nga patam-patame tuur ndox rek gaawantu rekk jóg da ngay toog bam yàgg nga santiir ne am na luy génn ci sa awra loolu moom mooy ñàkk ferlu te loolu sobe bi da son moom mooy daal di rogalaan di wàcc moo tax mbokk yi nit ki bu fekkee ne dafa tuur ndox bu dee jigéen la dafay taaxiirlu bu mu yàkkamti dafay xaar tuuti lu mel ni quinze jàpp vingt secondes mu daal di raxas li nga xam ne mooy awraam jóg jàpp bu julli mu dem julli ji su dee góor na dafay ratt awraam ñetti yoon ba lépp daal di génn mu daal di raxas awraam daal di jóg jàpp dem julli ji bu dee waxtu julli la bu dul loolu rekk loolu mooy waral yenn saa yi ngay jàpp ba mu yàgg santiir ndox moo xamee ne mu ngi génn ci yow boo continuer nag sa njàpp amuloo njàpp boo ci jullee it amoo julli wala nit ki bi mu pare it dem na jàpp taxaw du julli ba mu yàgg santiir ne am na luy génn su boobaa julleem dafay yàqu ndax njàpp la daal dinay toj te yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne képp ku sa njàpp euh, baaxul sa julli baaxul kon nag gis nga loolu dafay andi mbugalu bàmmeel xadis bi boo demee ci buxaari ak muslim noonu nga ko fay fekkee ibnu abbas radiallahu anhuma moo ko nettali kon nag mbokk yi ba tey anas ibnu malik radiallahu anhuma moom it dafa wax ni mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na li ëpp ci ñi mbugal ci bàmmeel mu ne yonent bi nee na ñi ëpp ci ñi ñi nga xame ne dañ leen di mbugal ci bàmmeel mooy ñi nga xame ne daawuñu ferlu kon nag mbokk loolu am importance la yonent bi ne tanazzahu min al bawli fa inna aamata azabil qabri minhu kon loolu lu jara bàyyi xel la jullit bi war nay fexe ba toog di ferlu ba daal di set mu daal di génn gis nga boroom xam-xam yëpp nag ci mazhab yëpp nag Malik Shafii imam Ahmad ak euh, mazhab imam Hanbal ñoom ñëpp d'accord nañ ne képp koo xamee ne ferluwul ba daal di eh, set su jàppoo jàppoom baaxul waaye bu julee eh, juleem eh, baaxul koo xamee ni tey dafa sikki sàkk ndax am na lu génn ci moom wala amul lu génn ci moom mazahib yépp nee nañ kooku na daal di jóg ci sens yi daal di dem raxas awraam daal di xool yére mi bu fekkee ne am na fu tooy mu daal di koy raxas jàppuwaat daal di julli su fekkee daf cee julli woon ba pare kooku dafay baamtuwaat waxtu yi nga xamee ni julli woon na ko ci ñàpp yi nga xamee ni bi mu ko defee ferluwul kon mbokk yi nañ bàyyi xel ne ñàkk a ferlu dafay andi mbugalu bàmmeel ndax euh, abi hurayra wala euh, ibn abbas laa bëgg a wax mooy ki nga xamee ne moom moo ko nettali euh, buxaari ak muslim ñooy ñi nga xame ne ñoom ñoo ko solo ndax mara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ala fa qaal innahuma la yuazibaani wa ma yuazibaani fi kabirin amma ahaduhuma fa kaana yamshi binnamimati wa amma al fa kaana la yastatiru min bawlihi rawahu cheikhaan kon mbokk yi nañeen bàyyi xel ferlu mbugalu bàmmeel mu ngi ci yàlla ñu si suñ borom subhaanahu wa taala euh, musal mbokk yi bala nga quitté nag boo seetaanee vidéo bi ba pare bësal fi nga xamee ne foofu la ñuy abonné nga daal di abonné ndax incha allahu taala nga wëy di mën a teewlu vidéo yi nga xam ne ñu ngi koy def ci eh, suñu émission bii di Zikra yàlla na yàlla def si ñun dégg ak topp def ko ci yéen yàlla na yàlla wan ñu dëgg bañ xam ne mooy dëgg ñu daal di koy topp yàlla na yàlla woon ñu ay caaxaan bañ xam ne lii mooy caaxaan ñu daal di koy wan ginnaaw wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu